bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Touba ca kanam Nour daari ni noo ngi néew baatey jora te ban xaq tebale jërëjëf sëriñ Balla Mbodj ci kàddu yi am solo yi nga fi wàccee jëm ci commission leeral bu Touba ci kanam ci lamp yi nga xam ne ñu ngi koy monté ci dëkk bu sell bii di Touba ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha gannaaw bi mu nemmukulee boppam gisal boppam seetlul boppam ni dëkk bii di Touba kat bokk na ci dëkk yi gën a lëndëm ci réew mi mu jox ndigal Touba ci kanam mu ànd koog mairie bu Touba ak Senelec ngir tuubaa bokk ci dëkk yi gën a leer ci réew mi Touba Ca Kanam at yi yëpp mu ci dox jéego yu am solo bi ñu nee bëri tàmbali itam Touba Ca Kanam amuti poto du bu weñ di bu dénk waaye nag li mu am mooy fépp ab làmp war a dem mu yóbbu ko fa te mooy dëkk bi daj waaye ni fàttali ñëpp ne ca tàmbali ba ki nu sëriñ bi booleel nga xam ne loolu ci compétence am la bokk fi nga xam ne moo di ay poto yu weñ daa waxoon waa Touba ji Kanam ne leen lépp luy poto weñ bu leen ko laal. potee dénk yi nag noo noonu wéyal leen doxal leen loolu nag mën nañ cee dégg ne mbeddi suuf yaa ngoog waaye baleen fi tali bi dégg naa ci làmmiñu boppam itam ba nu jubee marché Ocass ci mbedd ya ko wër yëpp mu leer naññi potee weñ ya fa nekk làmp ya takkut ñu ne waaw lu tax mbeddi suuf yeeg li wër marché bi leer mbedd mu mag mii ak tali bi leerut ñu ne leen ah ay la yéwén ñi nu àndal liggéey bi te nun kat amunuy poto moomunuy poto moom potoy dénk moomunuy potoy weñ waaye kilifa ga nee na nun waa Touba ci kanam kat bu nu laal potoy weñ yi nanu yem ci potoy dénk yi ñooñu itam ba nu ko laajee ci sama nopp ne luy sababu loolu yi mu ne seen làmp yii du ma nangu ñuy laal sama làmp yi ndax làmp yi dara baaxu ci mën naa xëy xëy yàqu lii moo nu ko wax nun waa marché Ocass xaw ma nag ndax loola moo walaabul ngir mu tere ko ci làmp yi weñ yi nekk ci dëkk bi yépp xaw ma ndax leneen la ndax kat secteur bu ci ne boo ci intervenir Touba ci kanam lépp lu muy def domaine bu jàmbur la ndax amul lenn lu ñu ko pàccal ci dëkk bi ne ko lii sa pàcc bopp la yaa ko war a gérer yaa ko war a doxal yaa ci war a tàmbali am foo ca yam lu dul secteur bu mu jëm rek am na ko gérer bu dee am ndox la maa war xamante ngi fi bu dee onage la bu dee lu jëm ci wàllum ndoxum taataay onage a ngi fi te boo demee ci ñoom bu ñu lay gàntal mbir itam ñu la wax ne la kat nangam lii bu leen ko daan bu ngeen ko defee nangam ak nangam poto yi itam lamp yii ci loxoy mairie la nekk yaakaar naa loolu ne itam bu amee lu mu jox ndigal nañu def leen lii bu leen laal leen lii bu leen laal lee te ñun moomuñ lii moomuñ lee waaye yitte ji mooy fépp fu wala leer ña ko war a leeral bu ko leer lugut ba amaguti làmp wala leeral ga yeex ñu ne ñu ñu ne nañ ñoo defaral leen ko ndax lu ñu defar rek waaye moomunu moomunuy poto moomuñuy poto yi dénk moomunu poto yi weñ cere googu nag nga xam ne cere woon nañu ko waa Touba ci kanam ñu toog lu mat diirub ñetti at di monte ay làmp ci dëkk bi yëpp ba ci jamono yii nag bi sëriñ bi jeexee ndigal waa Touba ci kanam ngir nu tàmbalee ci corniche sub Daaru Muxti jëm ci hôpital ba yeesal lamp ya fa nekkoon waaye yóbbu fa ay poto ngir mu àgg ci hôpital bu bees ba bu fa ay poto ngir mu ci bu bees ba Touba ci kanam bi mu jotee ci lamp yi te jotagul ci support yi mën nañ tàmbalee kon ca poto ya fa nekkoon te tàkkunu nanu ko taal déparé ko ci kër Sëñ Sidi Muxtaar ga ñëw ba ci jumaay Touba amaat ay lamp yu ñu ci yeneen barab yoo xam ne promobile ñoo fa def ay lamp ñu ne lamp yooyu kon nañu ko fopp tànn ay mbedd yoo xam ne bokk nañ ci gën a lëndëm ci Touba bi ci njëkk mooy bi tàmbalee ci station Daaru Xudóos jëm ca corniche sub belal mbedd ngi noonu moo xam ne mbedd mu pënal la mbëriwu fi te kilifa yi bari fa lañ dëkkee waaye mbedd ngi noonu moo xam ne ab hôpital ma fa maam poste de santé bu maam jaar Bousso ma maga fa mbedd la moo xam ne ab lekkool maga nga fa mbedd la moo xam ne miir bu yaatu tërëy ma nga fa di tokkooru sëriñ si yax te benn làmp newu ci guddi kër ubbi ko fa tokkoor baa fa nekk hôpital ba école ya tey secteur la boo xam ne kenn mënu koo teggi te kenn mënu koo bàyyi tële na màggi foo ko takk weesu na ko te ay lampi weñ ma nga fa waaye amul ay lampi yu yuy tàkk nga ñëwaat fii ci ginnaaw kër sëñ Fallou gii diggante kër sëñ Abdoulahi borom dër bi ak kër sëñ muy mbedd moo xam ne bokk na ci mbedd yi ëpp solo ci dëkk bi ndax mboolem imaam yi jumaa ji fa la ñuy jaar waaye bokk na ci mbedd yi gën a lëndëm ci Touba jafe-jafe bi tax nag mënuñoo saafara lëndëmaa yooyu nag du lenn lu dut poto yi nga xam ne dañ nañu laal leen yu dénki bu leen ko laal bu leen ko laal gi nag mënuñoo wax lu tax ndax wuñ ko laal leen yii bu leen laal yee la maa moom yii bu leen ko laal moomuma yee laal leen ko jëpp mën loolu la ndax noon moomuñ ci benn noonu te defar kepp ñu ci tax ko jóg kon nag tere gi war nañ ko mën a argumenté nañu lii moo tax ma ne laal leen lii lii moo tax ma ne bu leen laalee tey bu leen laalee maa ko war a defar war danaa ko defar diirub ñetti at boobaak léegi fu tàkkutoon dara tàkku fa ay nit ñëw fa dafa def lu gën la nga fa daan def muy ab piil nga ñëw ne itam di wéy naan bu leen ko laal ba ay coow ak ab liggéey di ci am loolu bu jotee il temps ñu leeral ko nit ñi il est temps itam ñu wax ci li am nag mooy gannaaw bi ñu tàmbalee yeesal lamp yooyu yii ba àgg ci jumaa ja jëlaat li tàmbalee ci tokkoor bi ba tool li tàmbalee ci station ba àgg ci ko ñu tokkoor bu mujj ba maire yàpp leen ci kuréelug leeral woolu leen ci biroom tàng jër wex xatt dal ci seen kaw dal yi métti nag tàng bay bonde mel na tengsi di lemu ci ak foto yam di lem martiku dal ci seen kaw dal yi yu wér attaqué leen ca la jiitu woon ca lañ joo woon ci ay potoy weñ dikkaat ñoom itam ci lii ñu defaat nii ba yegg ci ne sax lamp yi ñu fi da koy da koy démonté yématu ci loolu joxe ndigal ci ne nañ ko arrêté nanu fi bàyyi ay potoy weñam li mu moom moom xamees na ne diw lii moo ko moom waaye ñun Touba ci kanam amut lu ñu moom ci ay poto bu weñ ba bam ñuy tere ak dink yi Touba ci kanam defar amut ci benn bu waa Touba ci kanam moom li ci war Touba ci bi mooy lépp lu ñu war a def ña baa ñu yeex koo def baa mënuñ def Touba ci kanam taaliba yi fop seeni ñaari téeméer ngir dimbali ngir gàttanu tam ña ko war a def defal leen ko lool nag laalal fii ak bul laal feek maa moom lii ak moom mën leen amu ci wàll te war naa leeral publiquement ñu xam dëgg dëgg dëgg lan moo tax mu nañu dee leen laal poto yi dénk yii waaye bu leen laal poto yi weñ yii su fekkee daa jàpp ne suñu lamp yi daa baaxut comme na ma ko waxee woon te marché Ocass ne lamp yii du nangu kenn di ko yi nga xam ne ambulance perdue la bu ko defaraat te mën naa bañ a garanti loolu la fas nu ñëw yi nu mu demee su fekkee lan la itam nañu ko leeral nu xam ko xam gu wér gu tax mu tere nu lampe weñ yii bàyyee ñoo poto yii te ñun moomuñ ci benn. li am nag mooy dëkk bi ab maire amu fi li fi am mooy ab taalibe bu sëriñ bii liggéeyloo niñ fi tege ab taalibe it lañ ko fi tege waaye niñ fi tege ab maire ko fi noonu. li fi am nag mooy dañoo boole kàttan gi war a jëm ci ab maire teg ko jël xob ab taalibe di ko tuddee ab maire waaye ab taalibe bi sëriñ Tuubaa la bu sëriñ bi liggéeyloo ci dëkk bi ay taalibe sëriñ Tuubaa itam dajale seen koppar nga xam ne jëliwuñ ko ci kenn waaye dañoo dajale seeni i koppar yoo xam ne koppar yooyee moom ca la kaneen ak kaneen ca la am ndigal ci sëriñ bi itam ci nu koy jàppale ci defar dëkk bi kenn wëru cee gàllankoor sa moroom ci lenn luy defar dëkk wala lu koy baaxal kenn amu moom ci dëkk bi li ñu moom mooy bëggug sëriñ bi li ñu tax a jug mooy bëggug sëriñ bi lii suñuy jëf mooy luy jagal Tuuba ak lu koy baaxal ciw yoon cib tëli cim ndox ci lépp lu dëkk bi aajowoo loolu nag kenn ci ñoom ñaar ñooñu wala koññetteel koññeenteel ku ci gàllankoor sa morom ba tax la mu bëgg a def lu baax ngir njëriñal dëkk amee ci kenn ci ñoom muy maire ba muy Touba ci kanam muy Maawu Rahmati muy ONAS warees naa toog waxtaane loolee te xam ne ak gàllankoor la ndax kenn wuru ci gàllankoor sa morom ndax ndigal lépp lenn la sëriñ bee koy joxe te ndigal lenn la mooy nañu ànd defar dëkk bu sell bi di Touba waay man ci ñoom ko def la waay war na ko def lépp lu war a def te mënugu koo def ba mënu koo def ba def nga yeex ko ci jàppale ko ci jàppale ci loolu mooy doxee ci kanam kon nag li xew mooy dakkal nañ lamp yi ñu tàmbale mu àgg ci ko ñu koor bii nga xam ne lu mat fukki lamp képp a ca desoon mu àgg corniche waaye ci siisu ak kaddu ak bañ gu dëgër gam ci amoon tax na mu wuyal bañam googee ba liggéey bi dañ ko daal di arrêté fii mu ne nii ba wéyatuñ lamp yooyu faneen nag mu tudd xalaat moom ndax koo xam ne la nga tàmbali nee na bul ko yeggale la nga jot def am xelam nekkoon na ci na ko dindi kon nag dafay jëfaneen moom xel xel ko moom maanaam loolu moom jurul sax di xalaat moom kon loolu mooy lu mënta nekk moom kaddu yi mu yëkkati nag ca ndaw yi nga xam ne Touba Ca Kanam moo leen yëkkati ca moo leen yabal ca terrain ba kaddu la yoo xam ne man de daa maa part personnellement koy naqarlu koy dem ci barab di baa mu fay jëf lenn ngir moom waaye lépp lu ci waay def Touba Ca Kanam ñoo la ko sant lépp lu waay di liggéey itam nga koy liggéeyal ku la fa fekk na la jox gëdd yi Kanam gépp ku la woolu ci bureau mi itam na bàyyi xel ne Touba Kanam la woolu ci bureau loo ko wax Touba Kanam nga ko wax bu dee lu baax la Touba Kanam nga ko def nga ko defal muy lu baax ba Touba ko def mu def safaan te dégg naa ne ci jotaay boobee kat woolu na Serigne Xaarim Dieng ci ab biroom naan leen toro c'est toro li ma leen may daa ëpp te ko naan du ma topp diw fu ngeen jëm daa soriwut diggante poté weñ yii nag ak poté yii su fekkente ne toro c'est toro li ma leen may daa topp diw foo ko déggee fu ngeen jëm na ci suñu digganteeg mairie mii war nañ koo leeral ne ko ñun amul benn secteur boo ne ci Touba ñoo ko yilif wala ko moom ñun intervenir képp la man lu waay war a def lu mu bëgg a def lu mu mën a def ñu ko defal la tax nga ñuy tere lii nag yaa ko xam waaye ne ko dëkk bi xam xam ne ñetti at bu ngeen gisee mbedd suuf yi leer tali bi leeragut ñetti at su ngeen gisee ay lamp yu tàkk fu bari te fu baree bari tàkk fa yëg leen ne xam leen ne ki nga xam ne moom nee na am na lu ci moom ñun mu ci benn moo ñu laal leen potey dénk yi te bàyyi li ma fi potey ko kenn laal bañ ko am ne diirub ñetti at boobaak léegi itam ko jéem def tànn yenn route yoo xam ne dañoo jàppoon ne ñàkk la farata la ko tàmbalee itam dakkal na ko fii lañ ci yem ñëpp dañ ko war a yëpp loolu nag ñëpp dañ ko war a dégg loolu nag ñëpp dañ ko war a bàyyi xel na ko ñëpp yëg na ko ñëpp dégg na ci ñëpp bàyyi